di seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom yàlla subhanahu wa di seede ne moom moo yónni yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di jaamam di ndawam waral si ñun ñu topp ko ñu koy ñaanal yàlla na jàmm ak i xéewalam ak i barkeem yàgga wàcc ci kawam moom ak i saabaam ak ña toppoon ci ginnaawam ci ak rafetal ba diin ñuy dell si si jotaay yi ñu amoon si téere bu mag bii di thalathatil usul di ñetti cosaan yi nga xam ne jullit bu nekk war na koo xam lil imaam al mujaddid muhammad ibn abdul wahab taala mu mel ni ba léegi ñoo ngi ci cosaan bi ci mujj di xam gi jullit bi war a xam yeneenteem sallallahu alayhi wa alihi gannaaw gi borom téere bi am lum ko tëjee bokk ci masaayil yooyu mu tëjee ko gëm gi nit ki war gëm lii di dekki te ñu waxoon ci su jotaay bi weesu su jotaayu tey bi mu teg ci beneen ponk bu mag di gëm gi nit ki wara gëm lii di yenente yi yàlla subhanahu wa taala woon mu mel ni comme jàng nañ yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dundam njance gi mu si teg lu am solo la si xam ne moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa bokk si mbooloom yenente yàlla subhanahu wa taala yónni woon ana lan moo doon seen mission si kaw suuf ak lan mooy taxawaayu jullit bi si ñooñee moo tax borom téere bi wax ni wa arsala allahu jamia rusuli مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت kon loolu moo di bindu tey bi comme niñ ko waxee léegi muy ponk bu mag ñu amoon luñ ci wax si ba ñuy wax ci ñaareelu martaba bi te muy xam ngi jullit bi war a xam diineem ñu xamoon diine lislaam ci ñetti wàccuwaay la toll di lislaam ak i ponkam waaye ngëm yàlla ak i ponkam di juróom benn ponk bañuy wax ci juróom benn ponk yooyee waxoon nañ gëm gi jullit bi war a gëm lii di yonente yàlla subhanahu wa taala yónni woon kon loole waxoon nañ ci borom téere bi nag da koo indi fii di ko feddali ngir comme niñ ko waxee ponk gi mu nekk ponk ci ngëm yàlla waaye ngir rapport gi mu am ak eh, cosaan bii nii te mooy xam gi ñu war a xam sunu yenente صلى الله عليه وآله وسلم دمو بوك سيمبولوم يونتي يالا دان يوني انا لان مودون سين ميسيون سي كاو سوف كون لولو تخ بروم تيري بي فد في اك مو جيخالي كو مساله بو ام سولو سي لان موي باس باس جوليت بي سي ليدي اك رساله دي يالا يوني گيم دان يوني يونتي بي صلى الله عليه وسلم اك كان مو موجو سي نيوم دي يونتي بي صلى الله عليه واله وسلم ak gannaawam amul kenn kuy ñëw ku yàlla subhanahu wa taala di yónni ndax moom moo jeexal lii nga xam ne mooy yenente yàlla subhanahu wa taala daan yónni moo mujj sa ñoom kon comme niñ ko rombe woon si xadiisu jibril yenente bi sallallahu alayhi sallam ba mu ko waxee al imaanu an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli ngëm yàlla mu limal ko foofee li nga xam ne mooy ponk ya gëm gi nit ki di gëm yàlla subhanahu wa taala ak ay malaakaam ak ay téeréem waaye mu wax ko fa ak ay yonenteem kon gëm ñii di yonente yàlla subhanahu wa taala daan yónni ponk la si lislaam mënta ñàkk waaye it mboolem yenente yi la ñuy gëm comme wax nañ fii xam gi ñu xam sunu yenente di muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faw it mboolem yenente yàlla ma sa yónni si kaw suuf yow jullit da nga leen a gëm amul xajj ak seen manam nit ki wedd ben yenente si yenente yàlla subhanahu wa taala ko kay da fay génn ci diine wedd na mboolem yenente yi comme nagn ko tuddee woon si jotaay boobee weesu si ayatu nisa fa yàlla subhanahu wa taala khay inna alladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriquu bayna allahi wa rusulihi ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا كم نكبرهم سبحانه وتعالى وخي سنجا خمنا نوي خجلة ديغنت الله سبحانه وتعالى أك أي ننتيم نان ني لني غم دونيو غم ني مانام بولم يننت يالله سبحانه وتعالى يوني نيب لني غم امو دروا دي كي دي ويد كي boo ko defee rek yàlla subhanahu wa ne ñoo ñee day ñooy ñi weddi yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg ñooy ñi weddi yàlla dëgg dëgg dëgg ulaayika humul kaafiruuna xaqa la borom bi subhanahu wa wax kon mbooleem yeneen tey jullit bi da leen di gëm ñu bari lool nag yenente yi bari nañ lool comme ni ko yenente bi sallallahu alayhi wa waxee ci xadiis ne seenub lim di ñi nga xam ne yàlla daan na wàcc si ñoom wax yi ñu leen tuddee al ambiya yegg nañ si mi miat alf wa arbaata euh, euh, wa arbaatun wa ishruna muy cent vingt quatre mille yenente cent vingt quatre mille di téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeent téeméer ak ñaar fukk ak ñeenti junni ay yonente yoo xam ne e allah subhanahu wa taala daan na wàcc si ñoom waxyu ñi nga xam ne ñooy ñi yàlla daan yónni nag ñi ñuy tuddee ar rusul mu ne yegg nañ ci thalathumia comme ni mu ñëwee si hadith xadis bu al imaamu ahmad solo muy xadis bu wér maanaam ñi nga xam yàlla subhanahu wa taala yabal na leen jox leen mission toll nañ ci trois cent quinze ñetti téeméer ak fukk ak juróom ci ay yenente yoo xam ne yàlla subhanahu wa taala yebal na leen ñoom ñépp nag dañ leen di gëm ñoo xam ñi yàlla subhanahu wa taala nettali seeni jaar-jaar ak seeni melokaan ci alquran jaar ci seeni tur ak même ñi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala nettali nettaliwuñu leen comme niñ ko waxe woon ci jotaay boobee ndax bari nañ lool comme niñ ko waxee woon am na si ñoo xam ne e allah subhanahu wa taala limna seeni tur ci alquran comme aya ba mu wax inna awxayna ilayk kama awxayna ila nuuxin wannabiyina min bacdi aya bi nga xam ne borom téere bi indi na ko fii mu tudd fa wa awxayna ila ibrahima wa ismaila wa isxaqa wa wal wa wa wa yunus wa وأيوب wa وهارون wa وآتينا daawuda الزبورا yàlla subhanahu wa lim fii ab lim si ay yenente gannaaw ba mu yenente bi sallallahu alayhi wa man yàlla man maa wàcce si yow waxyu comme niñ ko wàccee woon si nuux ak yenente yi ñëw gannaawam si ayatu al anaam aaya ya nga xam ne ñoom ñoo ñëw si sootu anaam dañu jàngoon ko kadalika yàlla subhanahu wa taala lim fa ab lim bu takku ci ay yenente ba fa fa mi waxee wa min dhurriyatihi daawuda wa suleymaana wa ayuba wa yusufa wa muusa wa haarun ba aaya ya jeex comme niñ ko jàngee woon si jotaay boobee ba ñuy jàng si la aji si ngëm euh, ponki ngëm yi gëm gi ñuy gëm yenente yi yàlla lim fa ab lim bu takku si ay yenente ñooñee ñëpp dees na leen gëm euh, lépp lu yàlla subhanahu wa taala nettali si ñoom ñu gëm ne lu dëggu la waaye mbooleem yenente yàlla mosa yónni même ñi mu nettali woon si alxuraan jullit bi daf leen di gëm ka jiitu si ñoom li ñuy tuddee ar rusul comme niñ ko waxee woon léegi ndax dafa am ay ambiya am ay ay rusul liñ jublu si ar rusul mooy ñi nga xam ne yàlla subhanahu wa dafa wàcce si ñoom wax waxyu waaye yabal leen si aw nit ñu leen di digal di leen tere war leen a teg si yoon yàlla jox leen sharia ñooñee ka jiitu si ñoom mooy nuux nuux mooy awalu rusul comme ni ko borom téere bi waxee nuux yenente yàlla nuux mooy ki yàlla subhanahu wa njëkk a yónni ndax kii di aadam euh, di imaamu nit ñëpp di seen bàyyi ki yàlla subhanahu wa taala njëkk bind si nit ñi di aadama euh, nabi la woon maanaam yàlla subhanahu wa taala da ka daan waxyu da daan wàcce si moom waxyu waye diggante adama ba sëtam bi di nuux comme niko ibn abbas radiyallahu taala anhuma wa khe fukki siècle la yo xamne euh ci tawhid lañ nekkon ci wetal borom bi subhanahu wa taala lañu nekkon bokale musul wona xew xamuñu ko won waye lu jitu yàlla subhanahu wa taala di yabal nuux jamono jam ko yabal dafa am aw nit ñu baax ñu doon dund ci jamono yooye bi ñu faatoo seytaane daldi dikkal nit ñi def ci seen xel diggal leen ne ñii dey ñu baax lañ dangeen leen ni defal ay nataal maanaam ay ay statue eh, ak i photo yu leen di fàttali nit ñu baax ñii ñu leen di sawarloo ci jaamu yàlla ba mu rafeteelee loolu ci seen xel ya eh, nit ña it daal koy def daal koy def bi nga xamee ne siècle boobu maanaam ñooñee jeex nañ beneen siècle ba sa topp ñeneen ña toppoon ci ñooñu ñëw fekk fa statue yooyu fekk fa nataal yooyu ak photo yooyu di eh, wut آه، أكسواع يغوث يعوق النسر كم الله سبحانه وتعالى نتلش القرآن وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ابن عباس نينا هذه أسماء رجال صالحين نيدي يالله سبحانه وتعالى نيملم في أي تري باخ لا نيون sawwaroo suwarahum seeni nit bi ñuy faatoo dañee dañoo def seeni nataal wa nasabuha ala majalisihim ñu wéer seeni nataal def seeni statut fa fa ñu daan toog seen jotaay ya fa aala bihimul amru ila an abaduha min dunillah waaye fa ñu mujjee mooy di leen jaamu walis borom bi subhanahu wa taala comme niñ ko waxee léegi siècle ba ña nga xam ne ñoo defoon nataal ya ba ñu bañ fa jógee seen doom yaag seen sët ya ñëw seytaane def ci seen xel ya ne ñii day seen bàyyi ñii lañ daan jaamu lu tax du ngeen jaamu ñii ñooñee commencé di leen jaamu foofee la bokkaale njëkk a xewee ci kaw suuf bi bokkaale xewee nag yàlla subhanahu wa taala ci la yabalee nuux yonente yàlla nuh alayhi salatu wassalam ngir mu dello delloo wat nit ñi si jaamu yàlla subhanahu wa taala kese bañ bokale ak dara kon lolo tax nuh nek euh ki yàlla njëkk yabal si yonente yi moo borom tere bi indi fi ay wi ne li tektal ne nuux la yàlla subhanahu wa taala njëkk yónni wax jam wax ne inna awxaynaa ilayka kama awxaynaa ilaa nuuxin wannabiyiina min bacdi man yàlla subhaanahu wa taala maa wàcce wax yu si yow comme niñ ko wàccee woon si nuux ak yenente yi ñëw gannaawam wax ji mu wax ne wannabiyiina min bacdi mooy wane ne mboolem yenente yi gannaaw nuux lañ ñëw maanaam ñi yàlla yónni rusul yi gannaaw nuuxin lañu ñëw kon nuux moo jiitu gannaaw ga Eh, yàlla subhanahu wa taala saa su nit ñi soree aw yoon bàyyi li nga xam ne moom moo tax yàlla subhanahu wa taala bind mbindeef yi te mooy jaamu ko moom kese bañ koo bokkaaleeg dara yàlla yabal ab yonente di wàcce si moom wax yu di ko digal na nit ñi delluwaat di jaamu yàlla subhanahu wa taala kese bañ koo bokkaaleeg dara ba ka mujj si ñoom di yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy yonent bi mujj moom moo tëj kaste li nga xam ne mooy risaalaat yi maanaam ñi yàlla daan yebal ci kaw suuf moom mooy kasa mujj comme ni ko borom bi subhanahu wa taala waxee ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين mu ne muhammad du bàyyi ci kenn ci seen góor yi bu leen ko bàyyoo du du bàyyi kenn ci yéen waaye li mu doon mooy ndaw yàlla la yàlla ko yónni waaye mooy ki nga xam ne it xaatama nabiyiin mooy ki tëj yenente yi ki mujj ci ñoom kon alxuraan dafa ñëw di saxal ne yenente bi sallallahu alayhi wa moo moo mujj ci yenente yi كذلك يا النبي صلى الله عليه وسلم وحني وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي من ماي كيت يننتي امول بن يننتي بوي نيو سما غيناو بو وخي نبي نك كون رسول تخول ني وخ ندخ وخون نالا سيري جيتو نبي موي كيغا خامن يالا داكاي خبار يالا دافاي واتي وخ يو سي موم غناو غناك يالا من نكو يبال si aw nit wàcce si mom li nga xamne moy mooy sharia wàcce si mom li nga xamne moy téré bu ko défé lolé ak risala la waye nabiyyu moy ki nga xamne yàlla day wàcce si mom wahyu yàlla di di wax ak mom jibril du ko indil wahyu bu fekke lol jeexne ci kaw suuf kon yàlla dotul yónni kenn motax tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne mom moy ki mujju ci yenen tay mboolem yenente yàlla subhanahu wa taala dan yónni yenente bi sallallahu alayhi wasallam mo so mujj mota julit bi dafa wara fas lolou ci xolam dafa bok ci pas-pasu julit bi ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam moy ki mujj si yenente yi amul kenn kuy ñëw gannaawam kep ku wote wo ne ab yenente la gannaaw yenente bi sallallahu alayhi wasallam ko ke ku weddi yàlla la fay génn ci diine kep ku ko dëggalit da ngay génn ci diine da nga weddi borom bi subhanahu wa taala comme niñ ko waxé légui ci alcorane wax ko ci wax yenente bi sallallahu alayhi wasallam kadhalika muy consensus ci mboolem julit ñi ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam mo mo mujju ci si yenente yi képp ku weddi lolu da ngay génn ci diine comme nako na ko العلامة حافظ الحكمي رحمه ta'ala di waxé sa man منظومان di sulam al wusul وكل من من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى فهو ختام الرسل بالاتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق نكيب قواته أغيون أنت قناو مؤمن أنت صلى الله عليه وسلم يقلن وخل دق كوي نار لا سي لولا مو واتو نا يانت بي صلى الله عليه وسلم موي كي مجو سي يالا دان دان دان دان يوني واي موم nga xamne moy ngeen gi mbindeef sallallahu alayhi wa alihi wa sallam donte na nak ñu bare bare bari gannaawam li depuis jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wote wonañ ak yonente ne yalla leen yalla len yónni yàlla subhanahu wa taala gatchel len wone senu nar lolé lu yag la basi si mujjum jamono day continuer di am ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxon nako ko bokk na sa njëkkoon ci ñooñu ki ñu tuddee musaylima nga xam ne fu ñu tuddee turam rek dañ ci teg al nga xam ne woote woon na ak yenente ne yàlla ko yónni kadhalika kooku ñuy tuddee al aswadul ansi e, kadhalika woote woon na ak yenente ñooñee ñëpp e, ku si mel ni musaylima si lañ ko faat abu bakrin as siddiq radiallahu taala anhu dont ne si jamono yenente si si lu mujj ci jamono yenente bi la ko woote woo waaye bi yenente bi soo sallam génnee àdduna bokkoon na sela la mu njëkk a def mooy jiital ab armée xeex ak kii nga xam ne moo doon woote woo ak yenente ba ñu rey ko muy dem jamono di dem di dem ba am na ku ko woote woon fee ci Inde ku ñuy tuddee Ghulam Ahmad al yi di woote woon ak yenente la am ñu ko ci topp ñu baree baree baree bari di kuréel googu ñuy tuddee alqaadiyaniya nga xam ne boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci weddi loo leen yàlla génne leen ci diine ndax ponk bu màgg bi ñu weddi ne e, aslu bu màgg bi ne yenente bi soo salaam mooy yenente bu mujj yàlla du yónni keneen jamono di dem di dem di dem ba sunum réew Sénégal am na ñu koy woote wa foofu ci ay façon yu wuute nag ci ay melokaan ak i facettes yu wuute ñii naan la ka weexoon sa màkka moom moo ñëw ñuul fii maanaam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam imma moom moo ñëw Sénégal ñuul fa te loolee di ak weddi yàlla mbokki jullit yi comme niñ leen ko waxee léegi ñii naan la jibril ñoom ñooy wàcc jibril moom mooy wàcc si ñoom di leen indil xibaar bu jóge ci yàlla subhanahu wa taala loolee weddi yàlla la ndax wax nañ léegi ne يا الله سبحانه وتعالى نينا ينتبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ينتبي صلى الله عليه وسلم وخات ناني موم موي كي موجو سيني يالا دان واتي خبار سي جبريل دي لين ديكال ياو غا جبريل دا فاي نيو سي ياو دي لا واخ نانغام اك نانغام نينن ني نان لا من دي داما تد الله يالا نما نانغام اك نانغام اك نانغام مو ييو نان جامي يالا نينا نا نين ديف نانغام يالا موما سانت نانغام يالا لولي لب اي فاسيت لا سي ووتو اك يننتي bal weesu nañ foofu dem ba ay jigéen di ko woote woo naan ay yenente lañ loole lépp yenente bi sallallahu alayhi wa waxoon na ni laa taqumu saa xatta yubaata dajjaaluuna kadaabuun qariban min thalathin kulluhum yazcumu annahu nabiy xadis baa ngi si albuxaari ak muslim mu ne saadu taxaw mukk àdduna balaa muy tukki dina am ñu génn ay fenkat ñoo xam ne ay narkat lañ yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy wax dajjaaluuna kaddaawuun mu ne luy jege fanweer dinañ ko woote woo ñoom ñëpp ku si nekk di woote woo ne e, ab yenente nga te loolee di ay nar mbokki jullit yi képp ku fas loolu rek dangay génn si diine maanaam képp ku woote woo ne ab yenente nga yàlla subhanahu wa moo la yónni ولا جبريل مولا عند الخبر بو تي الله سبحانه وتعالى ولا يالا موم مو واخ ياو غاي جامي نانغام اك نانغام ген غا سي دينه بل كيب كولا غاميت دا فاي ген سي دينه لولا كونسنسوس لا كوم نانكو واخا لون ليك اي نيو نا ديكو ساخال يانت يعني بي صلى الله عليه وسلم آه، واخ كو مو لير ناني مبولم بروم خام خامي دپو نانسي لول بروم تيري بين تكتاني وكل امه بعث الله اليهم رسولا mission yi nga bi tax yàlla subhanahu wa taala daan yónni yenente yi lan mo taxone yàlla subhanahu wa taala di yónni yenente yi mboolem yenente yàlla mo se yónni ci kaw suuf la don sen mission moy taxawal wetal borom bi subhanahu wa taala ci kaw suuf deugal li di wetal yàlla subhanahu wa taala ci kaw suuf ko bokal ak dara ci jaamu guñ koy jaamu comme niñ len ko nettale léegi si nuux yenente yàlla nuh mi nga xamne moom la yàlla njëkk a yabal ci ba shirk bokkaale amee ci kaw suuf moo tax borom téere bi wax ni ñi yàlla subhanahu wa taala daan yónni xeet wu nekk wa kullu ummatin nation boo mës a gis rek nation bu fi mës a jaar rek baatha allahu ilayhim rasulan ñu fi mës a jaar rek yàlla yónne si ñoom ab yenente min nuuxin ila muhammad li commencé ko sa nuh ba sinu yenente sallallahu alayhi wa sallam lan mo don sen taxaway ya'muruhum bi ibadati llahi wahda lañ dan def moy digle jaamu yàlla kese bañ koo ak dara wa yanhaahum an ibadati taaguut ñu leen di tere lii di jaamu kudut yàlla subhanahu wa taala muy taaguut di lépp loo xam ne dañ koy jublu di jaamu walis borom bi subhanahu wa taala dinañ ci ñëw si ak yaatal si bind yi di ñëw ana lan mooy taaxuut ak définition am ak ay façon am mu ne la see tegtal wa dalil qawluhu taala ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت من ليس يتكتل القرآن يلا سبحانه وتعالى مما وحني خيت ونك يلا يبل نسيوم أم داو يلا يبل نسيوم أب يننته te la tax mu yabal ko an ibudullaha ngir ñu jaamu yàlla kesse wajtani bu taaguut waye wot moytu jaamu lu yàlla subhanahu wa taala lolé moy mission mboolem yenentey dëppoo si ndax deug la ci walu législation ak tëralin ci walu jaamu yàlla yenente yi dinañ wuté eh mais li nga xamne mom moy wétal borom bi subhanahu wa taala yenente yep ci depo amul ben yenente wama arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fabudu lolé la borom bi subhanahu wa taala wax amul ben yenente bu mu mës yónni lu jitu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ludul ne yàlla da an wàcce wax ci mom ci lan ci baat bii di laa ilaha illa allah ne amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla subhanahu wa taala mboolem yenente yi mboolem yenente yi amul benn yenente lu dul daan na wax aw xeetam ne ubudu allaha ma lakum min ilahin gayru comme ne ko yàlla subhanahu wa taala nettale si ay barab yu wute si alquran yenente bu si nekk da daan wax ne jaamu leen yàlla kese amul keneen ku ngeen di jaamu ku dut moom kon mboolem yonente yi lol moom moden sen wote lolé di woné kon ahamiya ak li di wetal borom bi subhanahu wa taala solos wetal borom bi subhanahu wa taala solo gimu am ak dayo gimu famu fa nit ki war ko xam bu baax a baax wootekat yi ñépp wara insister masala mom nga xamne mo doon base wote mbolem yenente yi ñu fexe ko jiital wéral ko si nit ñi ba mu wér bu demee ba wér nag ñu doog a tuxu si yi nga xam ne mooy euh, yeneeni masail yi donte ne base ba dafay continuer di ànd ak yow ba keroog nga génne àdduna muy wéetal borom bi subhanahu wa taala waaye moom moo war a jiitu si la ñuy woo nit ñi comme ni ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxee woon Muaad ci xadiis ibn Abbas bam koy yabal muy dem yaman na nek la nga leni ñeuk wo nañu wétal yàlla subhanahu wa taala bu ñu nangoo lool nag nga dogu tuxu ci lolou dem ci leneen mais naka ngay yitté wo dajale nit ñi ak di len wo ci ay mbir yo xamné mbiru pass pass ak mbiru tawhid wéragul ci ñom ñoo ngi si shirk ñoo ngi si ay khurafat ñoo ngi def lu wuuteeg li nga xamné moy wétal borom bi subhanahu wa taala suba ngoon nga leen di dajale la la la yitteel rek mooy majorité bi ak mbooloo mi waaye lii di baasu woote mboolem yenente yi nga koy sàggane loolee bàyyi yoonu yenente yi yàlla subhanahu wa taala daan yónni la moo tax wootekat bu nekk war a xam loolu war see xar tànk tubayam si nit ñi sax si lii nga xam ne moom mooy wéetal borom bi subhanahu wa taala bàyyi lépp loo xam ne Eh, bokkaale la jaamu kudut yàlla la subhanahu wa taala jotaay yi di ñëw dinañ gën a faram-fàcce te muy jotaay bu mujj bi inchaa allahu taala ci lii ñuy tuddee al taaguut te mooy lépp lu ñuy jaamu walis borom bi subhanahu wa borom téere bi dina si eh, indi ak yaatal eh, bu ko defee inchaa allah ñu jeexal li nga xam ne mooy ñetti cosaan yi yal nañ ko yàlla subhanahu wa taala yombalal waaye mu defal ñu tawfiq wërsëg wërsëgal ñu lii nga xam ne mooy ak weetal si li ñuy wax ak si li ñuy def wallahu taala aalam wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain